Ah! Sa akin naman nanak din. sa akin, man, salaamaaleykum, manam, maaleykum, salaam, ganda ka mais man ka nga war a fëgg kër jàmbur xamuloo ma. est xam nga ma. man xamoo ma de. waaw xamante wuñu nga fëgg ndànk ba ma ubbi la. waaw dëgg kay waaye boo rombee ci kër soxna fa da ngay fëgg ubbi la du dëgg. xanaa gisoo sonnerie bi. lii lan laa ko tegoon. bañ a yàq courant rek de est-ce eh, que yéen ci jàmm. liggéey doomu laa doon. liggéeyu lan. liggéey yëpp ma def. yëpp comme lan. man am liggéey bi naan laay man bi naan laa dama am bi naan si boobu comme que di dox. egsi. jiitu ma jiitu ma jiitu. bëgg nga damay tëj. waaw waaw waaw jiitu ma ñu jiitu. ah. des fois nga yab loo xam ne moom da lay daal di def loxo sama kër gi xam naa ni li ci def fan yi ba pare ma woo leen kër goo xam ni borom woo na la te suba ba léegi sedd bi jàpp ma ma toog ci naaj di leen xaar mu ñëw leen yoru naa waaye yab naa daal dara dara waaw ah, kon yaa ngi dégg wax wax gi si yow c'est que yow xam nga benn affaire dafa am gis nga boo yow sama kër ci ñu ko jëkk a génn ci la bokk barki alxuraan ko barki sëriñ Moodu xabaan te ma ca daara yi ko tëb yow ci ñu njëkk a génn nga bokk parce yow booy dangaa bëgg duus yow booy yow booy dangaa bëgg yow booy dangaa duus yow booy yow dangaa bëgg duus yow di nga feesal duus di nga laagu booy yow dëkk yow neexu xaar ba ñu ñëw pétee wax ji sew da nga koo bëgg wax ji pétee nga lii neexu lii neexu sama kër ngeen génn barki sëriñ Moodu xabaan tamit waaye a benn kër gi mën naa muñ lu mais ku ñàkk jom mënuma ko gis nga boo yow da ngay ba heure bu la neex nga yow mais père ban man sama kër ngeen di génn deux fois sept quatorze quinze bu yegg see ngeen génn sama kër te loolu dama koy tracé. Bon saw. yow yow moom dafa xëy nga daal di góob puusal lay puusal tuuti daa coono kenn bu góor ñi ñàkk a jóg jigéen ñi am ko. père dama naan père waa bay sama xaar père. waaw nga xam nga nag yow booy bàcc seen tubaab yi waaw wax ji sew am na fi. ma ne wax ji sew am na fi. bàyyi yow nga ci weer kër gi dafa am yoo xam ne ay sàcc la ma fi bëgg a teg. waaw si waaw. kii sekk jigéen la mais boo gisee wax ak moom nii daa am jom te nit ku dafa am ci loo koy seet. kii musuma yeneen location. chaque weer mu faral soo xaalis te li muy dugg ci bëri dañoo ko ba cent mille yoon kon kooku moom suñu sëb. mais yow booy yow premièrement li ma leen di ko wax. bu a sa taat. te teel wax ma jël léegi jox waaw jërëjëf. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm. sa saag bi wàcce ko. non dama de yee. waaw man ñu sàcc ma fii kat yow ngay xool rek ñu lay sàcc. da nga mën a sàcc. mais kenn du sàcc ay saag yi teg ko ci suuf. kon baax na. nga def maa ngi nii rek maa ngi ci jàmm. ça va. ça va très bien kay. mais ba tey rek kay. ah. ana laa dalee di ko. yow lu yaa dëkk fii. man moom ak sama doom. ah yow madame ñi ma ngay wéy kay de. di wër ko ma liggéeyal ba tey. pour ma fexe ba am far yàlla kii bi. ñu mën a aji màgg ne tël dëkk ci kaaba bi. maa ngi toog liggéey yëpp laa. yow tamit nga bëgg koo dëkk rek. gis nga ko de. wallaay yàlla de yow loolu rek lay def. Hmm. léeg-léeg lu baax rek lay liggéey. kon daal nii da ngaa ma bëgg yëpp war na ma ko mën a defal. ma def. lu ma bëgg rek di nga ko def. man na problème de. ah baax na. man am benn problème du mu laa. Hmm. ñett problème. man sama borom man daal naa xëy di ndekee borom ba bu tëdd jotee ma tëdd da ngay toog ay mag mu dee muy fi am pagaay waaw dinañ mën a jubóo ma ne ko ñun ñaar dinañ mën a def maskala de dinaa jox foo tëdd waaw ah. dinaa jox nga lekk dinaa jox nga naan waaye man tamit dafa am li ngay bëgg de hmm. waaw ah dafa nga bëgg foog ma bëgg de ah, yow léegi yow léegi ñaata ngay eh, nekkee man pour di ma liggéeyal ma di la fay. Uh-huh. ñaata ñaata laa lay fay su fekkee ne may fay ku yow. ah maanaam fayoon. fayoon. mbaa lekk gi doo ci génne. lekk si la bokk kay. ah, ah, ah nga koy jox la nga lekk jox la nga naan. Ah. jox la foo tëdd boo feebaree ma faj la. ah da ñaata ngay fayee. ah kay gëm naa yëpp sama loxo rek. man kon naa yëg sama loxo comme que dama koy génne di pare. man ah, daal boo ma fayee junne juróom benni téeméer rek ma liggéeyal loolu bëri na yàkkamti ma ci lenn nag. junne juróom benni téeméer. xaalis la de. xaalis la de. xaalis la de. boo koy jubóole. Mhm. xam naa ni moom bu boobaa xanaa nag may sangaale sama doom jubóol bi. <laughs> loolu mooy ma ne boo bëggee ma sant la. Hmm. boo bëggee waa kon bi sax mën naa leen a sangaale mën naa liggéey rek. baax na ko mën naa liggéey rek. kon yow jubóol lañ nga dañoo <laughs> nga dañoo dugg ci réew ko woon.

kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde jabet ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor Seydina Ousmane Ndiaye mi ngi leen di yëgal ni naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di toll nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor boroom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Merina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19. il faut man hmm. ay ceebu jën moom sawaruma si. mais sawaruma si. il faut ay plat de résistance xam nga. ay entrée xam nga. entrée waaw. ah ay entrée. yooyu yëpp da koy lekk. dama koy lekk. waaw nga def maa ngi lekk ay. ma defar ay kebab. ah yooyu laa bëgg lekk parce que ay ceeb man ko war a lekk. kebab moom yomb na kebab moom mën naa ko. mayam ci dëkk ba la. noo koy dolli. ñu ko Kéba damay dem ci àll ba rek ba ci saw moom ñëw teg. gën ko tax ak ay tomate ñam yooyu dem ba mu far sotti ci lekk ba mu baax. eh madame yàlla bu am géej ju tàmba dem ba mu ba tëbal ba eh bu baxee. seen kebaab ak suñu kebaab loolu. dëgg xam nga xanaa koy. surtout ay xëdd yi ñun aussi xëdd xam nga heure xëdd. waaw waaw heure xëdd. waaw xëdd damay préféré souvent ay riwale xam nga. lii wëlee dama koy soxla. lii wële mooy gën a daal. maanaam mënoon ngaa di fonde rek moo gën a oyof. non xamoo riwale. Hmm? riwale. xam naa ko kay waaye fonde daal moo gën a dëgër ci xët na. yow riwale mën nga ko. riwale waaw mën naa ko de. noo koy def riwale xam naa da ngay jëm sa ñaari jën rek dégg nga waaw ba mu set rek dugal ci cin bi ak sa soxla teg murum bàyyi noonu muy wax dëgg yow na de mu ko yow na de. xam naa riwale bi ni ma ko expliqué seen bos ak seen bos peut-être am na tuuti différence. mais ak le temps ñu nekk dinaa la jàngal bu baax sama ay plan ñu ko bëgg. lu may gën a yàgg ak yow day gën a da ngay gën a xam yow même laa <laughs> jàngal sax léegi ñu xamal la sa chambre. Hmm? donc sa chambre. sa chambre ah dañoo mën doon maa ànd déggoo ma ne ma la wax. dama lay wan sa chambre fi nga war a daal sa néeg. ah néeg bi. waaw tey nay olofé dégg nga. Hmm. ma ne ko nay olofé. nay olofé amul problème. <laughs> nay olofé. mais xam naa yow. man ba may ñëw dëkk bi xamoo. de un de un koor gi jot nit ñi woor mu weer ñu si naaj bi. waaw waaw. xam naa ba may ñëw dëkk xamoo man ku ma xamul dëgg dama lay expliquer sama jaar-jaar laataa may ñëw dëkk dëgg. man ancien international footballeur. booy jaaroo fu ma jaaroo mooy dé mooy déglu ma. booy barki yàlla jaaroo fu ma jaaroo. waxal yow laay dem. ancien international footballeur ngay wax. వేరు mooy mënoo def nag kii di romb du ma wax ak moom ba pare doo ko wax yow. où est le respect am na respect bi. yow laa dégg booy yow man mënu ma laa dégg parce que yow booy yar woo yow dinaa élastro sa taat bi nga ba li ngay dem ci dugub bi dafa bari yow dinaa la élastro yow booy dinaa la fat parce que Serigne Touba mën nga wax ko ñoom ñaar la sax. yow jom waxal yow am xam nga yow mën naa laa déglu parce naa la respect je te respecte boobu ci delloo dinañ am problème. waaw sa ma expliqué la man dama lay expliqué sama jaar-jaar. nag moo ko far moom ma jógee ci biir équipe boobu. ñu jaay ma benn i jaay ma benn équipe bu nekk. Euh, leader bu tudd Moussa. père foofu benn laa ko dugal laa ko jiyee dugal ma deux mille sept cent trente mille président bi nekkee xale bi tudd moo pay ma jógee foofu ñëw mu xaw a metti xaw a ma ñëwaat fii di kër kër ñëw yaa ngi fàttali bu deux mille deux Sénégal France réserve la El Hadj ah El Hadj Diouf ngeen gis maa wàcc Diouf la bëgg. yaa doonoon kat ci terrain bi.